j'aimerais bien ñëwaat euh, si échange bu Bala Moussa am léegi ak Pierre ak Mayoro et puis c'est intéressant euh, il fut quelque temps PDS ak euh, Yewwi ak wàllu ñoo lënkoo woon contre dame législative waaw donc tey comme il a dit PDS ak parti au pouvoir donc selon les opportunités PDS est en train de naviguer et comme Mayor l'a dit c'est un parti politique ils font la politique et c'est de c'est de c'est de bonne guerre personne ne peut le reprocher foofu laay ñëw parce que aujourd'hui accusation bi kan moo ko porté ne nañ PDS la moo demandé commission d'enquête parlementaire le président de la République bu amoon preuve ni ko premier ministre am il est impliqué dans cette affaire du fa fanaan man mii di wax ak yéen wax naa seeg président de la République wax naa seeg premier ministre toog naa ak moom ma toog jàkkaarloog les yeux dans les man du ma politicien bokkuma APR bokkuma PDS bokkuma réew bokkuma fenn technicien la président Macky Sall moom moo fi indi 2015 ma liggéeyal pendant quatre ans liggéeyal Amadou Ba trois ans ñoom ñaar ñëpp xam leen respecté leen xam lu ñu sëkk ñoom ñaar bu ñu fàtte ni Macky moo contresigné décret bu nommé Amadou Ba di ak Abdoulaye Wade bu ñu fàkk ni Macky Sall moo nommé Amadou Ba ministre des finances mu defal ko sept moo ko nommé ministre des affaires étrangères moo ko nommé premier ministre reconduire ko premier ministre en septembre donc gisuma lu ma loo xamante ni Macky Sall bu fekkee wóoluwuloon Amadou Ba du jël décision décret limoge ko à l'instant même Macky kenn jox ko leen bu muy désigner Amadou Ba Euh, candidat de la coalition Benno Bokk Yaakaar avec tous les membres la coalition ñoom Moustapha Niasse moo lii texte bi parce qu'il a jugé et là je la paix et Benno Bokk Yaakaar que Amadou mooy candidat bi nga xamante ne moom moo ko doy pour gagner élection yi ci élément yu mu am après comme ni ko Bala Moussa waxee ñenn ñi génn comme mu nekk Mohamed Boun Abdallah Dionne Aly Ngouille Ndiaye Mame Boye et cetera te ñooñu ñëpp c'est la même famille ils vont se retrouver man loolu laa yaakaar leneen li ma xam man ñoom ñaari xam naa ne xam naa ne respect bu ñu amante seen biir respect mutuel bu ñu am am na fu ñu toll bu fekkee lii amoon na Amadou Ba du xaar ba ñu koy naan on te limoge day ñëw parce que c'est quelqu'un de décent de digne intègre et c'est un travail un administrateur un un un, un quelqu'un qui a des et comme l'a bien di Pierre qui n'accepterait pas que ce pays soit en crise pour des considérations politiques et aussi pour des accusations qui, je ne peux pas dire qu'elles sont infondées, parce qu'il faut laisser quand même la justice faire son travail. Il y a un juge d'instruction qui s'est saisi du dossier. Il y a une commission d'enquête parlementaire qui a commencé. Moi, je pense que le président de la République a été responsable de dire qu'on a accusé gravement et sa entache l'image du Sénégal au Sénégal et à l'international man Paris laa jóge barki dem ba ñëw comme ni ko bala mu saxee foo toog Paris si ah bon le Sénégal vous étiez un modèle vous étiez une référence Washington Bloomberg Financial Times euh, euh, Reuters France ñun la ñuy. Euh, ñun la ñuy édition spéciale CEDEAO tey parce que man comme il a dit j'ai honte. en tant que jeune sénégalais vivant à Paris mooy toog ñu may indexé naan vote Sénégal même dans la sous-région le président malien commencé na ñëpp ak yeneen ak yeneen je ne vais pas entrer dans des considérations sécuritaires donc il est de la responsabilité de, du président de la République de dire ok stop pour six mois je sais même pas lu tax mu nekk douze parce que man six laa gisoon si projet de loi non def amendement. pour porter ça à neuf ñu ne a yàpp nañ ko pousse <laughs> ko changé du jour au lendemain. bon vu que maintenant. Euh, du nekk suñu initiative. donc donc PDS wala PDS moo ne lii am na nañu bàyyi bu yoon bi leeral man. li ma xamee Amadou Ba ah relation bu ñu am mën naa ne sax jàpp na ma comme doom ma jàpp comme papa xam naa ne tey loolu bu amoon moom mooy njëkk démission dem yoonam du ko sax du ko sax fooye te ñooñu waa euh, comme on a dit même waa APR Abdoul Mbow am na def na benn communiqué récemment ils disent que kenn accusé wul euh, premier ministre le président de la République dara gënul nga woo sa premier ministre ne ko lii lii moo am donc va je vais abroger le décret ñu xool ba affaire yi leer parce que bu ñu demee élection ils vont dire que euh, on a forcé et cetera et cetera ministre ne ko d'accord monsieur le président je suis vos instructions ma xaar et on fait euh, les diligences nécessaires pour quelle raison ñu bëgg mu démissionner dans son camp parmi ses proches man toog naa si ay débat ñuy xulo naan kii cinquante pour cent wala soixante pour cent demal da nga war a bàyyi da nga war a génn dañ lay yàpp tu es faible amoo benn personnalité et cetera ak ñeneen ñu koy toog ne ko fooy dem dañ laa euh, boo demee ça veut dire tu donnes raison à tes accusateurs il y a la présomption d'innocence barki démb la euh, juge euh, ministre de la justice française Dupond-Moretti on l'a accusé chose grave il est resté jusqu'à Euh, son procès bu ñu blanchir ak yeneen je peux donner d'autres exemples su bu ñu demee nag ba indi preuve ni moom la man xam naa waa ji ak personnalité am ak intégrité am ak valeur yi mu am que du sax xaar ba loolu di am bu benn once de preuve am te aussi juge ñu accusé am na kenn ku porte plainte am na ku ma si xam Coulibaly ah te Sénégal yu bëri xam nañ ne waajooju Cheikh Tidiane Coulibaly c'est un homme d'une probité intègre d'une intégrité irréprochable donc ñooñu même dans leur propre intérêt dañoo war a dem ba affaire bi leer nañ parce que suba ñoom seen i doom seen i sët on va le dire seen papa seen maam. d'autant plus qu'ils sont qu'ils sont en fin de def lu ko fi jar ba muy waaj a jeex ñu ne léegi man dañ am na preuve man am na preuve am nay enregistrement am nay audio am nañ vidéo nañ ko génnee léegi nag man je salue la posture du premier ministre parce que c'est pas parce que c'est mon grand frère ou que c'est mon candidat mais parce que comme l'a dit Pierre. ngar la Sénégal dañoo am ay euh, problème dañoo am problème euh, emploi euh, comme nu mu tudd comme ils disent là immigration clandestine baa ngi fi jeunes yi amuñu emploi inflation bi am na c'est-à-dire baykat yi on a un gouvernement qui fonctionne un premier ministre économiste qui a été sept ans ministre des finances qui a fait les réformes qu'il faut qu'aujourd'hui on a plus de de taux de croissance avec le ministre des finances actuel gars yaa ngi liggéey ñu ngi am suñu loi de finance pour 2024 bi nga xamante ne on a plus de 7000 milliards on continue le travail léegi ñu attaque ñu accuser euh, le comment on appelle ça conseil constitutionnel ak premier ministre bu ñu dee seen preuve fii ak 3 mois wala 4 mois wala cinq mois. on appréciera on, on, le premier ministre. mais mais Pape mais Pape et, euh, je reviens sur la le le, le Benno comme ni nga ko waxee man comme je l'ai dit man ma ñëpp xam nañ ko lu tax ñu dàq ma fii on man awma lu may ragal c'est-à-dire aujourd'hui et le président l'a rappelé en conseil des ministres on est dans un gouvernement am na lu ñuy wax soldat gouvernemental da nga am premier ministre nga nekk ministre wala euh, euh, directeur général foo jóg ci plateau nga saaga sa ministre nekk ko mënul ne ko baaxul ne ko na bàyyi lu nga ne yow nga bàyyi yow ministre boo xamante ne wóoluwoo sa premier ministre pour mu jiite la yow bàyyi nga dem am na ñu ko def wala nga dem ci mais di saaga suba ngoon boo ñëwee nga toog jàkkaarloo premier ministre doo wax foo ko arrête du bugguma fi tudd ay tour nag mais ñoom ñëpp je pense que le la a à euh, la fin de la récréation que tout le monde soit reculé derrière le premier ministre ñu liggéey ñu répondre aux aspirations des population ba ba élection yi ñëw et puis on verra maintenant dire que président dafa bëgg changer candidat ah man de yëguma ko parce que bu ko buggoon def dina ko wax te je ne vois pas pourquoi tey à neuf mois des élections mën naa day changer candidat bu ñu choisir ñoom ñëpp donc xanaa il faut ñu defaat tout le circuit ak les partis alliés ñoom euh, Aminata Mbengue Ndiaye ñoom Moustapha Niasse tous les partis benn bokk yaakaar pour choisir un autre candidat là s'ils ont le temps de faire ça euh, man maa ko wax candidat boobu ñu choisir keneen ku ñu teg en face dina ko dóor parce que aujourd'hui il faut qu'on se dise les choses telles quelles nit ñi dañoo liggéey c'est pas euh, en six mois ou un an la Amadou Ba euh, Amadou ak Macky Sall seen compagnonnage dafa yàgg dañu wóoluwante ñu liggéeyal ko PSE kan la euh, Amadou Ba la moi j'étais là au ministère de finances directeur général ak le ministre des finances actuel Moustapha Ba ak Foy Pierre Ndiaye qui était directeur général de la planification ak euh, euh, directeur général du budget actuel Maguette Ba ak Ibrahima Wade bu nekkoon boss ñun ñëpp ak ñoom Mountaga Sy ñoo toogoon def PSE bi bind ko et euh, benn premier ministre à l'époque euh, Mimi Touré ne woon na PSC bi nañ ko euh, sandi c'est un éléphant blanc ñu indi yoon yokkute Amadou ak équipe am Macky Sall moo ñu dooleel ñu dem Paris OCDE toog fii dans au ministère de finance liggéey plan bi bu mu taxaw bu mu indi ñu croissance taux de croissance bu ñu am Ousmane